Angga, lalu lalu. Sekar, sekar, sekar berapa? 害的没有。 Dimanda blow up. ñu daan na door ko dut lañ sagub kër gi mooy sunu sag kon nag mbàkke ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñaanal Cheikh Moussa mi suñu jëwriñ ci kër gi ba mu benn pakk ba lépp lu mu leen bëgg a liggéeyal yéen di ay maamam ak i baayam mu liggéeyal ko mu sotti coleet mu def li li ko war lépp ba lépp mat ci seen kanam ñu ngi ñaan nag mbàkke yàlla na fi yàlla yàggal ndax sagal nga noonu lool sagal nga kër gi kon nag mbak yàlla na fi yàlla yàggal waaye li nga ma la wax daal mooy suñu bëgg-bëgg Cheikh Moustapha mi suñu juróom daal nag nañu ci jàppale yéen ba li mu bëgg ci yoon wi lépp na ko def mu sotti colee barke suñu Moustapha barke borom bis mbooloo mi sëñ Ahmadul Mokhtar Mbakkeem Cheikh Modou Moustapha nee na mi ngi leen di sant mi ngi sant bu baax Serigne Moustapha Mbacke Mouhamed ma leen fi yebal. di leen sant yéen ñi yi. nga xam ne yéen ay jawriñ yi mu yebal ngeen di ko taxawu di ko indi fii ci moom. gis na nee na gis na jëf ji de rëy na ci moom lool. rëy na ci mbooleem njabootu Cheikh Moustapha gi mu jiite ñëpp it. mi ngi koy defe na ko wajurum bu baax ba Serigne Mbacke Mouhamed daan defee. sant sant nañ ko ci gërëm ko ci moom sëñ mustapha Mohamed di ko ñaanal it mu yàgg ko def te gën koo man mu def lépp loo xam ne ko ko ci it mu xam ko yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak moom di ko taxawu ngeen am ko ci barke sëriñ bi mi ngi def na ko bàyyam bu baax ba daan defee. Serigne Cheikh Mbacke Madina mii mu wax it. lépp lu mu tàmbali woon moom bu yëkkati moom ko lépp lu mu tàmbali woon ànd koog sëñ Mbacke Mouhamed na mu ko daan defee mi ngi koy defee noonu ba tey jii. kon moom it mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal. sant ñoom ñaar di sant jëwriñu di sant ñoom ñaar ñooñu di sëñ Mbacke Mouhamed sëñ mu Moustapha wuutu ko ci tey di sant Serigne Cheikh Mbacke Madina ak ay rakkam yépp ak njabootu kër gi. mi ngi leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf xolam sedd na xelam dal na ci yéen yal na yàlla def li nu bëgg noonu ñëpp ci moom mii taalibe bu ne na nga ñaan sëñ Ahmadou Moukhtar mi yàgg fi te ànd ko wér te àgg ci njabootu sëñ Modou Moustapha gi àgg ci njabootu sëñ Touba gi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf taalal leen te wax amin amin